dem rek jël ko indi ko bu soobee yàlla waaw. ah match bi ñu ngi nii daal démb ba tey ñu ngi waa gis nga ñu ngi feeraay lañ dëkkee yaa ma gën a xam Alaya waa ngi nii Alaya wax amul dara xew dañ koy dem jëriñ après mu jeex fair-play nag. xale yi def nañ lu ne gis nga koñ bi ni mu mel xale yaa ngi nii def nañ ba mu baax dañoo bëgg rek ndam li ñëw. ndam rek bu sooba yàlla yonent bi si bisu àjjuma bi 2-0 waaw ah dara barke Serigne tiituñu dara. may jaay di supporté waaw ndax feeraay mu ay tey original du ma foo original laa waaw bu baax sax ndax feeraay dama bëgg tey mu ko ko 1 bu leer naa ñu laa bëgg tey lu dem rek ñu dóor ñibbi suñu sàlla loolu laa bëgg yàlla may ñu ko nag. sóori daal ñu leen di ceebal ceeb bi amul fenn ceebu jaga nga jëni baax ñu leen di ñaan nag toggal nañ am jomu fubal football ba mu neex indi coupe ñu feete ko Normalement, c'est bon quoi parce que préparation bi ça a été le côté joueurs sur le côté dirigeants sur le côté supporters Et surtout surtout le côté joueurs aussi nous nous ñu gën bëgg bëgg sax parce que nous avons gagné donc donc euh, impérativement il faut que la victoire rien que la victoire Inch'Allah. travail bu avancer parce que nous le demi-finale ren avons yóbbu nga dem finale kon am na am nga monté nga en et puis l'équipe qui a éliminé demi-finale je la en finale. incha en finale mu nekk finale parce que équipe lancé à le j'espère que problème terrain la loolu moo tax ñu am problème bi waaw boo gisee final bi passé neex la nu problème mu embouteillage du ci coobareem bu doon suñu terrain aussi itam si ngay ëppee ambiance bi parce que am na ñoo a ñibbi te bu ñibbee ba match bi jeex ngay doog xam ñàkk terrain baaxoon parce que xale yi duñ am fu oto yi day guddee et cetera et cetera mais lancé nañu d'ici l'année prochaine incha allah danañ jouer suñu terrain commencé nañ ko defar di gën ñaax rek mu gën si waaw loolu dana permettre aussi tam équipe élite yu yaraax mën avance li ngay déggee Pikine ay Wakaam ay yeneen yaraax pourquoi parce que yaraax dafa football la voilà donc euh, espérons incha allah monsieur le maire mu si def ay jéego espérons incha allah d'ici l'année prochaine incha allah ñu kii si xam ne tamit du ASC bu ndaw daal maanaam bu dee même bu dee trophée yi tuuti na sax mais maanaam tur beeg xam nga engouement yooyu noonu euh, da nga xam ne ASC bi du ASC bu ndaw moo wax ñëpp si ñun la roy. joueur li di wax moo di ne ñu góorgóorlu ndax fi mu ne ñun ndam rek moo ñu ñor soxlawuñu leneen tey bi ñu xëyee dañoo jël ndékki yi teg ko de añ soxlawuñu ko reer da dañuy final bi ñaari yoon suñu cadet day final suñu junior final kon mbégte mën koy weesu foofu. tey jii ñun 2 juin la ñuy def bu nga ko wàññi xale bi 2 juin bi def 2 ñun amuñu kenn ku du jaay ba moom la nga ñu saf ndax mooy daw suñu deret ku ñu daggoon tey duñu naaj looloo am joueur yi ñaan rek yàlla ñu yokk góorgóorlu gañe si jàmm ñu del si si jàmm ndax Cadabec junior bi yëpp ay football yan yalla sunu jour bi nga xamni moy capitaine muy jibi ñi nga yalla naka yalla yegg leen ba li mu bëgg sa équipe yalla defal ko préparation bi mom suma jëkkër mom géré nako ba mat entraîné talul lek talul naan neew sax du ko def <laughs> ah jour kay dama leen di ñaanal yalla rek yalla may leen ndam ay jambar la ñafé nañ ba yegg fi yalla na yalla ndam ñu indi coupe bi fi ñu ray nak yi senegal jëm sa kanam. jibi dama koy ñaanal rek yalla may ko coupe bi mu teyeku ci loxom indi ko ba fi bu ko defee bu mëna a noppalu ko <laughs> na torop yalla nako yalla may ndam mu indi coupe bi mu mëna a noppalu ko nekk si ginnaaw xale ci katunu yalla ak mbaaxam daaw dama finalu ma gaare cinq car ak ñaari super mais ren ci kàttanu yàlla dinaa gaare dix Ndiaga Ndiaye 37 moto waxuma la ak ñi nga xamante ni dañu war a topp ci ginnaaw oto bi di daw ba stade nag ci kàttanu yàlla ak mbaaxam daw ñu si dara ñun jaarwaale la am jaarwaale la ñu dëkk jaarwaale lañu ñu xam su fekkee feeraay yaru na teg ko ci temps ñu foog moom ci terrain bi foog moom ci kaw tribune bi tel ko libéré un wala deux ba trois bu fekkee yaru waaye moom suñu ñu def ñu def leen loo xamante lu tee la su la ñu bëgg lan di courage rek nañu fair play rek amul xuloo amul xeex nañ dem football si jàmm ñibbi si si jàmm ak salaam di ñaan yàlla mu may ñu ndam ndam mu sedd guy ñu feete ko ñun ñëpp si jàmm ak salaam loolu rek la ah, man bëgg ma 3 ba 4 jëm 5 dama dama xeeb 1 ak 2 ah déedéet bariwul ah ah maa yaay ASC bi sama deret la de man maay seen yaay toujours rek maa ngi seen kanam. maa kontaan ñaan yàlla yàlla Wah ñu ndam ndam lu sedd guy def nañ ko lan lii nii première kii la rek lan yow wéroo lii première bi la première xante nii ba non gis na Feera ñun fu ñu woo ñu wuyu ko barki borom daaru gis na ñun daara waale ah daf ñoo def daaw lu metti loo xam ne dañoo toog di ko jooy te quart de finale mu dóor ko série soxna si loolu daf ñu metti ba léegi kon ren bu ñu dóoree ñu naa ñaan ñu ko yàlla de mais bu ñu dóoree war a xool leen quoi jara woo ñu dóor xam nga mais gis na gars yi bëgg fair play quoi dañuy def fair play isaay comprendre jël coupe bi yóbbu ko bii jaara waale jàll jaara waale yóbbu ay match bi match bi du yomb de match bi tey non digis ba pour feeraay rek. waaw match bi tey mënul yomb ndax lu yëngu lu ne la ko yëngal la doole. bilaay wallaay ñoom ñuy dajal ñu tudd waa ay see jaarawaale waaye dinañ xam ne tey la tey tey mënul yomb kii li mu wax rek laay confirmé 2-0 la bu bu réewee nag ma ko benn day yaru rek yaa ma gën a xam waaye tey mënul yomb tey bu naree yomb nañ ma tey la maa ngi nii pare naa pour fépp waaw te lu yëngu nag lu ne lu ko yëngal la doole waaw déglu leen ko waaw. essence yi carrément fépp lañ pare mais tey digisement yi boo gisee xam na ni ñun ay bay Fall lañ duñ see maanaam tey c'est la fête quoi maanaam mënul ñàkk benn bis rek day jàll waaw moo tax ñu déguisé wu nii daal di ñëw waaye incha allahu rabbi ndam rek ca kaw ca kanam jaa ngeen jëf. yàlla def na ko daaw ñu jël coupe ren ñu ñëwaat final waat loolu tamit sant yàlla bu baax a baax surtout nag ni ko cadet bi jëlee nii pour l'instant mu des senior bi ñuy xaar ñu ngi waaw instant yi ñu góorgóorlu rek te delloo buum ca mboy mboy ga rek teg fañ ko daan teg rek parce que man fa laa juddoo fa laa yoroo fa laa màggee xam naa la fa nekk bu baax gars yi dañu dañu sonn avant ñoo agsi fii mais nag lii nii yëpp liggéey la rek liggéey la liggéey bu yàgg la nag nekkul loo xamante ne dafa juddu tey màgg tey mais liggéey bu yàgg la parce que lu ñu liggéey la bu yàgg suñu borom nag mu ngi ñuy doogam wàllu parce que boo xoolee depuis 2014 ba léegi jaalawaale pour équipe ko si biir terrain c'est difficile c'est difficile trop wax dëgg fa yalla pour équipe gañuñu ci bi terrain difficile na trop trop trop mais loolu non yëpp nak sante yalla dañ ci sante yalla bu baax baax. que Diallo Wally euh, équipe la ba nga xamné équipe bu ci nawétane euh depuis 86 lañ ko créé donc euh, ça fait 4 ans ngi nii ñëw final 2016 2017 2018 2019 machallah tay aussi yalla def suñu cadet ak suñu senior yëpp qualifié. Euh, actuellement, au moment où je vais faire ce cadet, en tout cas, merci yi nous avons gagné 2 buts à 0 euh, ci finale bi nga xam mooy zone 7 euh, C. pour les seniors préparez-vous nañ ko bu baax ci côté yëpp nous nawetaan moom xam nga dafa xaw doy mais préparez nañ ko le côté mental le côté physique.

gañe Foundiougne dañ koy gañe dama leen koy waxaat Foundiougne dañ koy gañe duñ ko football dañ koy gañe taxaw na ñu joué suñu morom la ñu dara ay see ay see ay see Brasil! do Toute l'équipe de l'ASC. Attention à, à qui le retrouve cette même balle dans l'entrejeu. Qui écarte cette balle, va retrouver. Voilà, voilà pour euh, l'ASC. Euh, euh, donc l'ASC Yalavani. Et que c'est l'équipe de Ferret qui va dégager Abdoulaye. Voilà. Euh, Voilà, et que voilà euh, la partie euh, de et qu'il y a plus de points que de moins pour le quartier de vie dans le et que nous jouons euh, presque la, euh, la cinquième minute de cette grande finale entre Galawani en rouge blanc et ASC Ferraille en vert blanc qui promet ce soir. que tout ça, va bien jouer ah, pour l'ASC Ferraille, retrouvé par Tarawali. Ah, bien joué, Jorama. Bien joué, Taronat qui s'appelle si c'est libre. Retrouvé par l'un des milieux terrain au niveau de l'entre-jeu, Bien joué. Une bataille dans l'entre-jeu et que voilà pour ça, ouais. Ah, ouais, c'est important. Aziz, euh, Martini, c'est bien parti ce soir. On doit l'agneau, c'est bien parti comme vous l'avez. Bien, encourager cet animal. La carte d'animal, compétition rek si dama lay bàyyi nga ndawal tuuti le ah voilà ça s'emballe ce soir ça là, de loin en loin assez violent attention attention à Caravali hey le gardien ça s'emballe violemment c'est une seule arrête pour arrêter Caravali au vent et que faire on doit tout ça ce soir c'est bien là, attention là et c'est là, et Kawala qui arrive à se dégager voilà le latéral droit, attention hein. Attention, qui tu lui-même. Et que voilà, en fait les 10 premières minutes de finale. 0, 0, 0, 0, et que nous attendons euh, la euh, Attention, Et

Dubaï, euh, Ben Arnam demande ce soir. Ben Arnam demande ce soir. Entre l'AIC Dialawani et l'AIC AIC. Voilà, AIC Danifor. Donc toutes les grandes AIC-là qui viennent proposer cette concept. Euh, voilà, donc tey jii bu ñu taxee ñu aussi tamit ci final bi bu nekk Momaro. donc bu nekk Momaro. waaw kon loolu. boo jëlee dugal la AIC Danifor. Bukieva apele Bożu, innego na apelu Serujaj, Kareke Kete Poszona, że apelu Serujaj, Kete Bajaj, Unicorn, l'ancien footballeur de la SC Nous l'envoyons Sandré, il nous l'envoyons sur l'Italie du Dubaï, il nous l'envoyons sur l'Italie, il va Sandré, les gars, il va Sandré,

patron de l'ODCAV de Dakar, Pape Mouarlo. Pape Mouarlo mobilisé vraiment pour, euh, pour nous honorer. Tout à fait. Le président Abdoulaye Sène, c'est vrai. Euh, et attention. la zone 7C ñi nga xamante ni tey taxaw nañu pour jaajëfal may ci bon c'est parti c'est parti c'est parti attention

Guarda, preferaria. Paolo Parenza è andato ma pro e da lei buona Parenza sua come se la perde Paolo Campagna se la perde Paolo Campagna che rappresenta lo più di te di reversivo eh c'est bon, le dernier fait de cette finale ce soir. Attention danger, bien Ali. Eh, il va centrer. Eh, attention à but Eh, le gardien qui sort cette balle. Le gardien de la là, il a eu la carte sur cette action. Le gardien a eu la carte. Et que la défense tombe par rapport aux attaquants ce soir. Attention, Diawali, attention, Ferrari. On assiste à un duel de gardiens. Les gardiens, là, ils sont vraiment... Voilà, il y a tout souvent. et tout soufflant. Et reprise acrobatique. damay da yaakaar naa ne mérite na lu ëpp lii parce que ñun dañu nekk xale di ko seetaan ba tey ñu ñëw di ko am moom ay terrain yaakaar naa ne tamit dara loolu am na solo. xanaa daal vraiment bu ñu nekk fierté Yaraax la ba daw lay daw. c'est une longue voie. ah mais maa mi temps mais c'est le mi temps maa mi c'est attention danger.

attention, c'est pas c'est dangereux, le gardien est là, attention c'est tout euh, à l'heure. Attention, euh, hé, le gardien Oh, c'était dangereux. C'était dangereux, et que la défense, euh, on a encore remarqué la passivité de la défense de l'A.I.C.

c'est normal, c'est une finale. Et elle ne lâche rien. Merci, merci à, à David Diallo. C'est la fin de la première mi-temps. La lumière est sifflée. La fin de la première mi-temps. Le frère est blanc. Le frère et rouge et blanc. Et le Dalaraï, euh, Patrick Marquet pour cette première mi-temps. Et soleil, le vainqueur pour la. waaw ma ñëwoon sét sétane si waaw comme yarax la rek am nañ droit pour ñëw pour sétane xool yarax football bi fa la tollu ñaari sport yooyu ñoo ma gën neex si sport yi bëre ak euh, football waaw sport yooyu ñaari sport yu ma neex la. waaw neex na quoi neex na neex na parce que am na ampleur euh, te retrouvaille bi rek moo si am solo quoi waaw waa yaraax waa li leen wax mooy li ñu wax rek. bu ñu bu ñu dëkkal fu ñu dëkkul mooy non violence parce que boo nee yarax rek violence la ñu di ko wax. nañu nañu bañ violence bi ñu maytu bu baax a baax te xam ne lépp yaraax la tey ñi fi ñëw ñëpp ay doomu yaraax lañ buñ paree ñu ñëpp ñu ànd dellu lu mu guddi guddi ñu ñëpp yaraax lañ ñu ñibbiwaat rek. kon di wax ni euh, li def nii yàlla na si yàlla def gën a def jàmm déwén nag ñan nañ yàlla ñuy fubalee suñu sunu dëkk si biir yaraax la ñuy sumb bi la ñuy sumb si yaraax muy suñu stade bi yàlla na ko yàlla mottali mu pare si jàmm si loxo Babacar kër maa fi représenté monsieur le maire man maay Matar Diop premier adjoint m'a représenté le maire pour présider la finale de la zone 7C. Le fait que nous jouions Alsan Digo, c'est vrai, mais il Mais Inch'Allah, à partir de cette année, parce que pour demain, stade municipal, commencé à travaux à commencé déposer def gazon synthétique nous incha allah nawetaanu nous avons 2020 Inch'Allah, allah foofu lañ pour footballé quoi. di am mbégte Je suis rek di gunge sama xaritu président zone 7C muy Abdoulaye Sène euh, ci organisation bu rafet bi mu organiser tay ci fête vraiment bi mu organiser fête bu fête bu neex bi machallah di sante yalla bu baax a baax euh, ci li nga xamante tay réussir nañ ko muy année bi football nañu zone bu nek lu jëm ci euh, juróom fukki match ak lu tek xuloo amu fi xex amu fi donc suñu credo c'était de c'était d'éradiquer la violence au sein du mouvement navétane aujourd'hui on l'a réussi message bi ma wara lancer moy message du jàmm message ou fair play message bi nga xam ci si aussi wax ni ça c'est la fête de la jeunesse xalé ñoko mom fête gi neex na ba paré ñu gëna continuer message bi may lancé moy aussi tam xale yi ñu gën leen sur le plan sportif moy lan am expérience infrastructure ak équipement sportif et inchallah en tant que maire dañu ci def subvention yi bu leen gissé ci zone bi ak ASC yépp yok nañ ko mais lolu aussi ñun en tant que conseil municipal dañu gëna def lu ñu dem ci taxaw bu baax a baax mais en tout cas sport entreprise bu am solo la et dinañu bëgg vraiment li ñu gis xale moon xale table ferraille yi ak xale yi jouru jàlluwaale di ko def vraiment ñun dañuy fier nekk maire dañuy fier bokk yaraax parce que tey xale yi honoré nañu yaraax à travers ça nag may remercier aussi le président maître Abdoulaye Sène président de la CCC au nom de monsieur le maire et voyez la forte délégation qui m'a accompagné cela veut tout simplement dire que Aujourd'hui, la mairie a, pris à bras le corps, comme elle l'a toujours fait, vraiment le, mouvement sportif de manière générale, mais surtout les navetans en particulier. Ousmane Djé. Ousmane Monsieur Ousmane Djé Ousmane il n'est pas là. Ok, pour qui pour remettre ça Monsieur Mahet à Aleka va remettre donc le diplôme. Mahet, quel le diplôme À Ousmane qui Il est absent, merci. Alors, la table, merci. C'est bon Ok loolu mais ça fait partie donc du mouvement de la la cérémonie protocolaire la remise des diplômes ok on va continuer donc les instants de commentaires merci. voilà hein. je moi ci pas Comment comme man je ñuy primé je ma primé maa ngi primé pour service rendu parce que je suis délégué à la zone depuis 1993 jaajëf vous waaw doyen Lamine comme ni nga ko waxee rek man dama ne waaw trois vingt cent bi la Lamine mu dal si baar bi Lamine devanceur bi VAR am na solo VAR am na solo quatrième arbitre bi VAR loolu am na solo Lamine attention Lamine ma jox la nga xalaat nga wax ñu loolu noo ko gisee on a retrouvé le rouge et blanc de Galawadi euh, dégagé sur le rangs central par les verts et blancs, ballon retrouvé par la défense. Et puis voilà, c'est euh, les et blanc en attaque, attention, qu'est-ce qu'il va faire euh, Ballon retrouvé par Galawadi. Galawadi, le rouge et blanc.

parce que wala boog dañu demee Mina ak Fatick maa bi nga xam moom la ñu indaale yaakaar naa loolu mooy xaw a feeñ tuuti mais nag Diallo Wally moom attention capitaine bi ci biir nga moom moo koy dóor dóor na ko man maa ngi si tànk waa Diallo Wally si mooy attention L'avait dit, félicité encore une fois Aïssé Diarroya qui dit c'est un moment dangereux, attention, il prend là la frappe oh, Un lieu qui peut dégager en catastrophe par la défense, voilà, oh, retrouvé par euh, Aïssé qui joue bien, perdu. Euh, voilà, retrouvé par le latéral droit de l'Aïssé Diarroya. Il va passer, c'est dangereux, mais la défense est là pour accompagner euh, la balle euh, sortie de 5 mètres Espere, wait after Lotus Portland et la Voilà, donc Lotus Portland est du suivre l'action. Voilà, il euh, va balle pour la SC euh, Qu'est-ce qu'il va faire Il va chercher un partenaire élémentaire, va attention. Euh, la SFLA qui joue avec son gardien, il va dégager un catastrophe que il tête le jeu de, de, de, de, faire des blancs de la SFLA, qui va faire une passe. Attention, le centre, il va laisser le chien à son... mais la Bon, oh, pour AS Yalouani. Yalouani, la bataille du militaire. Le prince Bédard, le centre répartis dans la défense, la tête de, de, de l'accepteur de l'AS Yalouani, perdu, retrouvé par euh, le joueur de, Ferraille. Attention, attention, dans dégagé un temps Dans flamme par la défense de Galawani. Ballon pour Ferraille. Ferraille.

ma Aliou dernière question balaa ngay dem rek yaakaar naa ni ci mois avril incha allah dinaa am benn délégation kanam ndax suñu doom lañ suñu rakk lañ ak xam nga dañoo bëgg daal maanaam mbir mi avancé bu baax ba ñëpp gis seen bopp daal xale yi yeeg ñëpp ñëpp ñëpp am na lépp am na survêtement am na yére bon am na lépp daal n'hésitez pas xëy na bu ñu duggee maxsport.fr rek wala si YouTube rek dina gis nag loolu ñu ngi kontaan nañ daal ci yéen ñëpp remercié slogan bi mooy go get it go get it c'est en anglais ça veut dire si wolof demal ca li nga moom boo leen gisee Moussa Ndoye sama lutteur de passage maa ngi koy nuyu ndax moom ambassadeur la ci marque bi ndax bon li koy yóbbu fu nekk daal ndax fu mu dem moom lay sol mi koy di demoo xam nga bi mu tudd dimbali koo tane

una ocasión, una, una, Là, on aussi de la qui eh, transversale gardée par l'excellent gardien de Galoani. Voilà, on multiplie les efforts. Voilà pour les verts et blancs de Ferraille, le centre est parti, la tête de la défense, et que c'est une sortie de touche euh, d'ouvrir le score, puisque euh, c'est le moment où jamais, attention, la balle perdue, voilà, retrouvé par les verts et blancs, le centre est parti.

jagle ko Fatou muy di ci ñun di xarit ci ñun di conseiller ci ñun di àndandoo ci ñun yàlla moom ko nga ni daaw ah bésu tey bi dafa tombé ak anniversaire parce que bëgg sport yaraax bëgg lu jëmale yaraax kanam bu doon nit ku jar a jàppale jar a ñaanal jar a taxaw bésu tey bi nag bésu yaraax yëpp la parce que comme ni ko journaliste di waxee ndam li tey génn moom xaw ma la la quoi voilà kii nga xam ne moom moo représenté Fatou Diouf bu fekkee mën na wàcc Lamine. final bi.

ànd ceeg sa mag sa xale le premier adjoint au maire monsieur Matar Diaw ànd ceeg toute la délégation avec. Euh, euh, tey lii dafa war a nekk la nga xamante ni dañuy ñëw lu ci mën am ku di yaraax lay dellu waaye yaraax ñoom ñooy G am benn moom mooy G président la waaw donc euh, monsieur le maire tey jii yaa fi taxawal le maire Babacar Mbengue Euh, ñu koy remercier au passage pour tous les efforts yi nga xamante ne bi ñu koy def euh, ak ni mu yokkee subvention yi ak promesse aussi tamit bi nga xamante ne euh, def na ko ban kàddu ngay wax au nom du maire. waaw tey li may wax rek mooy le maire Babacar Mbengue institution la diriger dafa diriger maire yi Hann Bel-Air nekkal ay naataango mu nekk bureau municipal ak un conseil municipal. ak président Malick Bissane moom Kasaka ay sey bu mag boobule ñoom ñoom ñëpp dañu wax gàcce ngalaama laa seen kii gàcce ngalaama ay milliards da leen koy jox mais donc yéene beneen fa fi nekk di leen wax merci beaucoup donc comme li nga wax donc tey bu ko defee rek mu egg dafa leen dañu continuer gunge mbir mi moom muy jeex si jàmm ak. moom tamit bu fekkee demagul moom tamit war nga mën ñëw fii soose bu fekkee yaa ngi ñuy dégg soose jege si ba bàyyi la ak doyen la Aí ele tá de novo, tá indo pra ñu ngi leen di encouragé à persévérer ñu ngi leen di encouragé yoon bi nga xamante ni moom mooy dañu war a dañu war a créer benn benn benn tournoi boo xamante ni day mettre aux prises les demi-finalistes wala les quarts de finalistes des deux zones. c'était idée à réfléchir à défricher donc première penalty numéro 4 euh, de l'ASC Dialawali moom mooy dóor contre-pied parfait contre-pied parfait Ama excellent waaw excellent vraiment il a excellent tey jii bu joxe quelqu'un comme homme du match dina ci bokk bu joxe homme du match dina ci bokk voilà donc. Euh, deuxième tir le numéro 9 ah. Euh, ay say jaarawaal yi ñoom ñoo njëkk dóor daal dugal feeraay ñoom ñooy ñëw seen première tireur arbitre bi sifflé na seen première tireur dóor na ko dugal na ko feeraay bi dóor na ko dugal na ko un bi nee na affaire bi fële la xaw ma na fu mu joxoon fële la joxoon fële du ginnaaw rey mais la def de xaw ma nag en tout cas waaw yëkkatiwaat na loxo bi si kaw day saan léegi nag deuxième tireeru jaarawaale bi mooy loxo bal bi pousse na pousse bi teg na ko sur le point fatidique voilà il prend son élan il

donc euh, qui Le l'ensemble techno penalty. Voilà, Abdou donc euh, qui s'est s'élance. Voilà, qui tire et Il manque son penalty. Il manque son penalty. perle bi wax nga ko avant muy dóor nee nga góor bi moom koy napp parce que bo gisé penalty affaire de gardien parce que góor yi ñoom ñoo si ëpp chance joueur yi waaw. li ma sorti lox nag nga xam man. voilà donc euh, le joueur de Diallo Wally qui s'apprête a tiré son, son, son penalty, l'arbitre Il prend son élan. sur l'arbitre siffle, l'arbitre pour son penalty. Voilà un penalty très important qui tire et qui marque. Petit Aziz.

Voilà le jeune qui s'élance comme ça. Qui s'élance, qu'est-ce qu'il fait Oh Rien à dire. Contre-pied qui puis sous la lucarne. Rien à dire. petit gardien Il va s'élancer. Il va s'élancer. Lui aussi un titre très important, un grand talent qui se concentre, qui tire et demee si góor bi ñu ko def ki nga xam ni moom mooy seen quatrième tireur mooy dem noonu. d'ailleurs sax kenn ki moom bu la ñu dafa mel ni meilleur gardien. Euh, vraiment ak service d'ordre arbitre de def de liggéey solo. voilà donc la Soukra. waaw ñu ngi leen di ñu ngi leen arbitre vraiment c'est une partenaire là le service d'ordre. vraiment ñoom la Croix-Rouge. la presse. wow la première à la dernière journée donc euh, voilà donc euh, qui s'élance qui tire. parce que man du ma gis kat quoi mais vraiment xamoon amoon nañ yaakaar bii quoi parce que yàgg na quoi yàgg na Dialawaly vingt ans a ngi vingt ans a ngi deux ans lañ fi am benn lañ ciy am benn defet man man j'ai pas le mot quoi billaahi billaahi bëgg naa bëgg naa wax mais parce que xaw ma sax lu ma war a wax parce que dafa lii dafa neex quoi Dialawaly quatre ngi jaayante muy muy metti daaw yàlla def ne coupe bi niñ neexuñu mais man maa décidé ren damay continuer xam naa ne damay yëkkati coupe bi bàyyi ak moom jaalawaale dafa am lu fi am loo xam ne ñu xëy na amul ci yeneen équipe yi entente travail bu baax te en même en même temps tamit oh, ay dañu am ay coach suñu morom quoi man coach bi ñuy yor daanaka soo xoolee maa ko njëkk a joué deux ans mais entente dafa am entre ñun ak moom quoi dirigeant yi ku mel ni ñoom Maguette Ndiaye ay ñoom Mamour vraiment ñun amuñu amuñu seen fay quoi vraiment parce que. ñoom ñoo tax équipe bi yegg fii bi bu fekkoon bu fekkoon comme yeneen équipe bi la du demee nii te tamit on a des supporters yoo xamante ni vraiment ku ñëw stade bi tey gis nga ni mu demee gis ngeen koñ ba ni mu demee vraiment lii moom mënul woon ñàkk quoi parce que gars yi jaayante nañ ko. nee nañ une finale ça se joue pas ça se gagne quoi ça se gagne vraiment biñ duggee terrain bi yaakaar fekk nañ fi loo xamante ni xawoon nañ ko xaar mais xaaruñu ko woon trop trop quoi waaw vraiment Feeraay équipe bu baax la ñu am ils nous mais nag ak expérience bi bu dul dara. waaw ndax budul dara budul dara ren mooy sama 18 ans senior quoi c'est pas donné à tout le monde fii ñi ma doon jéewal man maa fi joué maa fi 18 ans senior budul dara sax expérience boobu tey wane nañ ko ba tax ñu jël coupe bi daal. man man sama famille ama seen fay mais madame moom madame moom yaakaar naa mooy ki gën ci man quoi si non mom, kooku mooy ki gën ci man parce que gis naa ne man Suma, suma su ma defee li ma war def. xaar ko moom mu ñaanal ma billaay wallaay damay am ndam te bi may xëy si suba wax na ma ko ne ma da ngeen di am ndamu kade ak señor te bul dara sama jabar jirim la te jàng na maa xaw a kàccoore rek te mënul ñàkk quoi <laughs>